9 90 ngeen bés euh, li nga xam ne nag mooy numéro whatsapp bi de 78 111 68 68 bi képp koo xam ne am na thème wala mu am loo xam ne ma dëgg bëgg bëgg na ko dolli ci émission bi euh, mën na ci envoyé audio wala sax moom wala mu am thème boppam bëgg tamit baaxee ko Sénégal mën na caa woote wala mu envoyé ci audio incha allahu dina ma jot baa mu jot ki nga xam ne moom may mantulaay ñu dem ànd ak waa Régis seetaan vidéo bi te dikkaat

su ma xëyee damay def sama menage su ma defee ménage rek ma demaat feneen ñu owaat ma defaat menage di ko dénk sama xaalis ak sama mu ne ma def may jëndal terrain léegi ñuy may ma liggéey si moom ba wàcce koor la nii daal di dem liggéey feneen. Eh, yow yaa ko proposé mu jënd la terrain wala moo la ko proposé. déedéet comme que man sama loxo jotu sama ginnaaw te maa ngi su ma àbb nii sama fee su ma dëkkee ñëw fi àbba. Mhm. léegi man maa xalaat loolu daal. comme que liggéey ma liggéey métti la te doole bi day jeex. ma ne waa waaw naa koy dénk xaalis daal ba bu matee mu jëndal ma terrain. Mhm. waaw léegi may def noonu di ko dénk sama xaalis sama lépp. su ma xëyee liggéey bu yeetee bu ma fayee lii ma jox ko lii ma dundee ma samay njaboot ma xëy xëy rek mu ne ma dañ koo sàcc pour man damay tooñ sax mais bi ma duggee dama ñëw pour man si télé ma dem xool télé bi nekk ma nekk yow de sa moo yow kenn sàcc la man ngay ndax doon noonu mu ne moom man muy jël sama sept cent mille xaalis sama trois millions or ma ne kon am na sa kër gii 3 millions or am na fi ak 700000 daal di bàyyi mu jàll man daal ma xëy liggéey liggéeyante ni ba wàcce ni ma sëñ dem liggéey rek mu oo ma téléphone ni ma bu ngo bu ngoonee boo liggéey ba wàcce nga jaar police waa police dañu lay oo ma dem sama beneen sama dëkkaloo mu ne ma affaire ah di jëloo dañu lay def enquête rek dañuy enquête xool ma daal di ñëw rek policier bi daal di ma demal si giri bi ma ne ko giri daal di nangu sama portable ma si giri bi sama yaay mu bañ ne duñ ma jox portable samay portable léegi sama ex magu jëkkër boobu romb duggal foofu am na muy lijjanti rek gestu yem si kii bi rek wax ma waaye loo def si ma ne ah man de dañ ma jiñ sàcc mu ne hii kan moo la jiñ sàcc kii de du jullit kii de du gor wax a wax wax léegi mu daal di gis sama maçon yi muy liggéey xam nañ ne man liggéey rek laa mu dem si ñoom ne leen man waaw gil mi mëkk patati patata dama bëggoon ñu bàyyi audience bi moom mu ñëw si ak njabootam sama patron a ne demal ñu utal nañ ko avocat lu la yoon may nga jël lu ko yoon may def na li ngay def ba pare bu fi ñëw sa teg sa tànk di di ñu wax demal sa kër nga uti sa avocat mais utal nañ wootee mën la jox dëgg oh, comme ne goral yaa bu muy tëggal ba muy nekk euh, or. waaw léegi léegi léegi valeur euh, valeur valeur euh, terrain bi nga ko jëndaloon ñaata la toll. valeur bi ay huit cent et quelques mille ak ah, xaalis ma ko doon dénk. Ah, la toll. presque million bi li ko manqué sax bariwul. man xam nga duma jàpp damay ñëw rek jox ko. ok ndekete yow moom moom it xam nga ko doon def. waaw léegi ndax mi ñu leen àttee ba pare ba nga xam ne tribunal jox na la dëgg ndax fay na la sa xaalis. fay déggal ma la fay bi bi ñu ñëwee tribunal man maa fa soulevé loolu sax loolu yokkute fa sama der set loolu gën a setal. Mhm. daf ko nëbbal waxul dara man maa sama avocat yi man dénk naa ko sama xaalis ak sama njëgu. xaalisu kër pour ñu jëndal ma kër sama avocat bi nag bi ñuy àtte mu xaale loolu léegi bi ñu paree ñu nekk ah, andil xaalisu jàmbur bi ak këyitu këram indiwul dara dara indiw ko dara dara dara. léegi ñu demee. <laughs> Ah? yow da yaakaar daal bañoon laa fay moo tax mu jiñ la ab sàcc. yow nit ki ñëw wax rek ñu nga jàpp ka rek defee rek kenn dégluwuma. d'accord ah, kenn loolu moom ak yokkam ak moom. saa yu ma ko gisee tonton Jaga maa ngi koy bëgg a tukki parce que li ma def daf ma métti su ma tëddee léegi damay yéew ba xaaju guddi sa toog di ko jooy parce que métti na ma lool lool lool amul fenn ma ko jooyee. كلا بلودا من jërëjëf euh, Warisy maam Sidi jaajëf euh, Baye Fallou kër gi euh,